téléspectateurs yu télévision Futurs Médias daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki daañu dem ca ministère de la santé li muy digtal askan wi bés bu yàlla sàkk niki tey ji euh, ci altine ji yemook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril jàppaleen ne lu tollook juróom-benn fukk ak ñeent ci ay doomi aadama ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus mu mel itam lu tollook juróom fukk ci ñoom nekk ay cas contact fukk ak ñeent nekk ay cas communautaire maanaam am nañ bile doomu jàngoro te xamuñu rek fan lañ jëlee lu ni mel mu mel itam ca hôpital Abbas Ndao ab soxna woo xamante ni ma nga yëngu ca wàllu ko docteur nekk ci service euh, chirurgie ba nga xam ne rek moom moo fa nekk moom moo am jàngoro ji di coronavirus jamono yi nag kuréel wa nga xam ne moom moo yor wàllu woowee nag ña ngay def kem kàttan ngir rek daal di xool ana yan matuwaay la ñuy jël daañu wax itam euh, ci ki nga xam ne moom moo di docteur Bousso sukkandiku eh, ci xeex jàngoro ji di coronavirus eh, ni ki tey ji nag daal nay def ab taxaw seetlu ci li nga xam ne rek eh, moom moo di wàllu dépistage yi ci jamono yi nga xam ne wile doomu jàngoro daal dina rek wër ndomb réew bu Sénégal li mu xamle moom moo di bëgg na rek ñu gën a daal di baral lu ni mel daañuy wax itam lu soxal wàllu seddaleek li nga xam ne moom moo di dund gi bokk na ci dogal yi njiitum réew bu Sénégal daal di jël jàppale askan wu Sénégal jàppale itam Sénégal ci gox goxaan yi nga xam ne euh, ñoom ñoo fi nekk ki ko xam ne di secrétaire général bu ministère bu développement euh, communautaire yooyu itam kaddu ki nga xam ne moom moo di Mansour fay ni ki tey ji euh, foofee nga xam ne moom moo di ca ministère de la santé daañ ci toftal mbokk yi li nga xam ne moom la yéene kay xëy ni ki tey ji ci suba moom Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ci àndal li lépp tënk la ne skis ma dikk ñu yaatal salaamaaleykum mbokk yi safo télévision Futur Média ñu nuy waat leen rafet du tam ànd bi ngeen ni ànd ak ñun ni ki tey ji euh, ci altine ji lu tollook juróom benn fukk ak ñeent ci ay doomi aadama ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus mu mel itam lu tollook juróom fukk ci ñoom nag di ay cas contact fukk ak ñeent ci ñoom itam nekk ay ka yoo xamante ni ay cas communautaire lañ maanaam am nañ bile doomu jàngoro te xamuñu rek euh, fan lañu ko jëlee dañ ci teewlu ki nga xam ne moom Xemes Ndiaye Ngom moom moo yoroon kàddu bés bi. ci juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-benn fukk ak ñeent ñoo ci dellu si ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk moom la wax cas contact mooy yi nga xamante ne ñoom liñ saytu ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi fukk ak ñeent ñoom la wax cas. communautaire mooy yi nga xamante ne kenn xamul kan moo leen ko wàll te moom mooy yokk mbas mi fii ci dëkk bi ñu ngi leen di gis ñaar ci Sangalkam ñaar ci Rufisque benn ci Grand Médine juróom benn ci Touba benn ci Thiès benn ci Sédhiou ak benn ci Mbacké moom la yàlla moom démb am nañ benn patient boo xamante ne moom génn nag ci lim bi nga xamante ne moom la ñu hospitalisé ci bërëbu fajukaay yi moom biñ ko saytoo amatul doomu jàngoro ji wër na am nañu nag benn cas ci suñu service u réanimation yi ñi nga xamante ne ñoo fa tëdd feebar seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan bi nga xamante ne mbas bi ñu Covid 19 dugg na Sénégal ba léegi ñu ngi toll si juróom-ñaar téeméer. ak fanweer ak juróom-benn yi nga xamante ne ñu am doomu jàngoro ji ci yooyu ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñoom wër nañu juróom-ñeent ñoo ci génn àddina benn lañu delloo réew ma mu dëkkoon mu des léegi fi nga xamante ne mooy bëju fajukaay yi ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ni ñu ko waxee démb. am nañu juróom-ñeenteelu nit ki nga xamante ne moo wàññeeku fii gaañu fii ci Sénégal ci mbas mi ñuy wax Covid 19. benn jigéen la bu tolloog ci juróom-benn fukki at mu ngi gaañu bi nga xamante ne ñu ngi koy transféré ci fi nga xamante ne moom la ñuy fejee mbas mi di Covid 19 fee ci Touba. Euh, moom moo yoroon kàdduk bés bi foofee sax la ñuy desandi euh, ca ministère de la santé fekk fa suñu ndaw la nga xam ne euh, moom moo ñu fa teewal Pape Fara ñu ngi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop. lan lañ mën a jàpp ci ay xibaar yu bàyyeekoo ci ministère de la santé. liñ ci mën a jàpp daal Cheikh moom moo nekk ne ba léegi lim bi ñu jël ci wàllu test passé na juróomi téeméer juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk lim bi takku na gannaaw record bi nga xam ne moo fi amoon di juróom ak ñett bii moo ci topp naka noonu tamit lu ëpp juróom fukk fan yëpp moom la ñuy nemmeeku ci li nga xam ne moom la ñu am lii di wàllu jàngoro ji juróom-benn fukk ak ñeent ah tey nag record tamit amati na cas communautaire yi fukk ak ñeent loolu gëj na am te leneen luñ ci mën a jàngat moo ne cas communautaire yi danoo tas ndax bu ñu la ca Sangalkam ñaar Rufisque ñaar Grand Médine Touba juróom-benn Sédhiou ñëw mu nekk fukk ak beneenu région boo xam ne am nañ bi la feebar ca Mbàkke mu dellu si waat naam mbir ya mu ngi fa wàññeeku fan yee ay ñaar lañ fa dem am naka noonu te diwaanu cees mu daal di fay dellu si leneen lu ñu mën a jàpp Cheikh ñiy wër tamit léegi bëreetuñu ndax tey fan yi ay ñeent ngay jàpp ay ñett ay juróom-ñaar ñooy wër tey kenn moom moo wër ci ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar jamono ji ci euh, feebar bi nga xam ne moo nekk coronavirus leneen liñ ci mën a jàpp tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër euh, docteur yi maanaam ci centre yi ñu leen di traité toll nañ ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñoom ñoo ëpp foofu ñi nga xam ne jot nañoo wër boobu ba léegi ndax ñaar téeméer la ak juróom-ñett fukk ak ñeent loolu tamit war naa dellu si xelu sénégalais yi cas importe am na ko kon mooy dem beeg dikk bi mu ngi ñëw ndax li ñu tuddee kaa importé ba duggee fële ci Guinée mais cas bu ñuy jëlee gox yóbbu ko gox ak gox tamit loolu war nañ ko mën a seetlu ndax ñi ci ki ko yóbbu Kaolack ak ki ko yóbbu fële nga xam ne moo nekk ci diwaan Tiwaawoon ki ko yóbbu fële ca Sédhiou ñoom ñëpp naam ñu ngi def état d'urgence kenn du dem dëkk ak dëkk ñooñu ñu ngi dem di ko yóbbul ñi nga xam ne ñoo nekk ca boobu la gox kon naam takk der yi mënuñoo ne ne askan wi tamit nañu jël seen responsabilité bu baax a baax ak chauffeur yi nga xam ne ñoo leen di yóbbu rawatina borom jakarta yi te loolu nag nekk na lu doy waar beneen bu ñu nemmeeku dina ci ñëw docteur Bousso jàpp na ne ñi ciy feebar ñu bëri ay ndaw lañu waaye ñi ciy gën a loru moo nekk mag ñi kon ñiy dem ci biti di ko indil mag ñi nañu gën a xool seen bopp yenn rang yu bëri yi ñu ngi koy nemmeeku ci jaay mburu yi ñëpp wax nañ ko ci ak yeneen yoo xam ne yëpp daan nañ ko ci nemmeeku ci wàll wi nga xam ne mooy gën a lawal bi la feebar di jàngoro boo xam ne ah, paj mi ba léegi kenn gisagul lan moo koy faj lu koy calmer fexe di ko traité ba nga wér daal moo fi am mais traitement spécifique amagul juróom fukki ci ay nit niki tey amaat nañ coronavirus ñeent communautaire Cheikh mu nekk lu doy waar ni ki ngoon incha allah point corona Abdoulaye Cissé ci guddi gaan ànd ak Fatou Dieng miroir Covid 19 suba incha allah ñu dellu siwaat ci yeneeni xibaar di jaale ki nga xam ne ñàkk na ci bakkanam kooku mun nañu ko tuddee dese communautaire ndax nag moom da leen dem ci yoon ba mu ñàkk bakkanam ka ca diwaanu Thiès tamit noonu la demee ñëpp ñu ñu longool ñan la ñu longool ñoo ñëpp ñu war leen saytu léegi ñu mot ñaari weer ñu nekk ci jafe-jafe yi suba incha allah ñu dellu si ak seen point corona lépp rek ngir daan bile feebar jëf Pape Fara ngi ñuy rafetlu tam uh, liggéey uh, bu yanj bi nga xam ne rek yaa ngi koy def uh, ci woowule wàll bu ñu jugee ca ministère de la santé dañuy dem ca hôpital bu Abass ndaw mu mel ni ab soxna boo xamante ni day yëngu ci wàllu kër docteur moom moo fa am jàngoro ji di coronavirus nag nekk ca service chirurgie ba nga xam ne rek moom moo fa nekk jamono yi ña nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu jàngoro bi nag ñu nga amal après gisee seen ak biir xool yan matuwaay la ñuy jël tënk li ak Alassane Assane ci leeral nee nañu moom infirmière bi nga xamante ne ni moom moo amee doomu jàngoro ji ca l'hôpital Abass ndaw nekkut ci biir l'hôpital bi la ko jëlee wante ca këram la ko jëlee ci xabaar yi ñu jot mu nekk ab cas positif bu ñu nemmeeku ci biir l'hôpital boobu ab soxna si nga xam ne nag ca service chirurgie lay liggéeyee ñi nga xam ne nag ñoom la bokkandool service boobu daañ leen defal examen xool ndagam wallu leen am déet te bu moyit daañ leen yóbbu quarantaine ab réunion d'urgence bu commité de gestion bi yor wàllum xeex lii di Covid 19 dana déterminer taxawaay ñu ci war a amal ay dogal yu am solo nag yu ñuy xaarandi mu nekk ab contamination agent bi nga xamante ni wàllum wérgu yaram lay liggéey ñëw nag yokk ci yi nga xamante ni jot nañ ko nemmeeku ci fan yee ñu génn. ci biir l'observateur ñu ngi fàttaliku Mballo Dia bu ànd gësëm mu ngi doon xam xamle lu toll ci juróom benni agent yu wàllum wérgu yaram amee nañu doomi jàngoro ji ci hôpitaux yu mat la bul Matlaboul Fawzeyni bu Touba ak bu Daaru Marnaan ci hôpital principal moom nee nañu ñaari garçon de salle ñoo ko jot a am jërëjëf cant ak ngërëm ñeel na la alxasan ba bu ñu jugee fii ci diwaan bu ndakaar ñu dem ca Sédhiou foofee nag doomi aadama bu njëkk boo xamante ni am na jàngoro ji di coronavirus daal nañ ko fay nemmeeku di ab rek sëriñ boo xamante ni ma nga demoon eh, ca rajo bi ñu dippee eh, Pakaay eh, FM ci ab émission boo xamante ni ma nga fa doon am loola itam suñu ab ndaw boo xamante ni mi ngi fii ci groupe Futur Média moom moo jiite boobule rajo jamono yi nag ña nga xam ne jëflante woon nañ ak ñoom ñu ngi li nga xam ne rek moom moo di ah, quarantaine quarantaine ngeen baal ma ah, maanaam dañ leen ah, beddi bokk na ci dañ leen a ber bokk na ci Bakary Konté Bakary maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ana lañ rek lañ mën a jàpp ci ay xibaar foofee nga xam ne moom moo di ca Sédhiou. waaw lu ñu mën a jàpp rek euh, mooy rajo bu fi nekk tudd Pakao FM. nekk euh, rajo boo xamante ne moom la ñuy nekk di lëkkaloo ak groupe Futur Média ndaxte ñu ngi synchroniser avec la RFM rajo boobu nag may jiite rajo bi may directeur bi donc sëñ bi moom nag euh, dafa amal fi émission tafsir samedi diggante c'est quatorze heures ak seize heures la def émission tafsir donc bu mu defee émission tafsir boobu mu pare après village bu mu nekk dans la région de Sédhiou c'est à vingt kilomètres de Sédhiou vingt cinq comme ça donc euh, dafa doon dem chaque jour di dem di ñëw bon après mu dellu këram bu mu delloo këram ci la sentir ni yaram bi dafa tàng après mu dem euh, def euh, hôpital ñu xool tension bu ñu xoolee tension bi température bi ci la xam ni température dafa jóg léegi ñu indi ko hôpital Sédhiou def prélèvement yóbbu ko Kolda résultat yi génn résultat bu mu génnee nag mu nekk cas boo xamante dafa positif donc euh, loolu nag bu mu amee rek euh, ma jokkoo ak euh, médecin du district sanitaire à sept heures et quelques mu woo ma ma waxtaan ak moom mu expliqué ma yëpp donc ma garder sama sang froid waxtaan ak moom préfet bi tam woo ma Ibrahima Fall ñu échangé après si laa woo personnel yëpp yoo xamante ne ñëw nañ ci rajo bi a partir du samedi à partir de quatorze heures ba ci dimanche bi ñoo xamante ne liggéey ñu parce am ay cours yi ñuy joxe ci rajo bi comme TFM nu mu koy defee man tam moo copier ci TFM di jël ay professeurs yi ñuy def ay cours pour askan bi donc euh, ñu ñëw ci émission yooyu ñoom ñëpp mooy répertorié nañ ak ñoo xamante ne jaar nañ ci rajo bi même bu fekkee dañuy ñëw dem def émission soit euh, euh, kii ay émission religieuse ou ñoom ñëpp ma joxe seen tur woo leen nag expliquer leen dalal leen seen xel ne leen comme cas contact la parce que ñëw na dugg ci rajo bi même bu fekkee dañuy pomper studio bi chaque fois ak euh, gel def ay mbuus yooyu mais comme dugg na suñ rajo rek lu ñu war a def rek mooy damay joxe seen tour pour que ngeen bañ lor seen famille yéen tamit euh, ngeen isolé wu comme ça ñu ñëw def ay prélèvement Euh, ñu ñaan prélèvement yooyu mu nekk négatif donc euh, ñu ngi xaar maa ngi ni heure bi dañuy ber rajo maa ngi ci biir rajo bi ak quatre agents yoo xamante ne ñu ngi ñëw fi liggéey donc euh, agent de santé yaa ngi fii ñuy jël ay information désinfecté nañu studio bi yëpp ak lieu de travail bi yëpp la ñu désinfecté donc ñu ngi toog di xaar ñu war a def prélèvement yi donc loolu la ñu mën a jàppagum donc waa ji benn sëriñ la boo xamante ne dañ ko xam trop ci tafsir fii ci diwaanu Casamance donc mu nekk koo xamante ne Eh, ràññee nañ ko loolu il a 39 ans donc mu ngi liggéey ak ñun donc euh, lii la yàlla dogal donc euh, ñu ngi toog xaar ne ñëpp tamit agent yi wax naa ne ku am contact ak nit rek mu bind turam pour que bu fekkee agent de santé ñëw nañu bu ñu defee suñu cas contact yi ba pare bu fekkee c'est négatif alhamdulilah rabil alamin mais bu fekkee am na cas yu ñu ñun tam fekk déjà liggéey recensement ñi nga amal contact nga mënu ko def loolu la ñu mën a jàppagum daal. jërëjëf euh, Bakary Konte mbokk yi ñoo ko déggandoo ña nga xam ne itam ñoo doon liggéey ca boobule rajo wala itam ñamu jot a jëflanteel euh, sëriñ bi nga xam ne moom lañ rek ne dafa am jàngoro ji di coronavirus nag jamono yi ñoo ngi leen ber ñu ñaan yàlla rek yooyu les résultats bu euh, ñëwee doomu aadama yooyee nag du am jàngoro ji di coronavirus dañuy jóge foofu ñëw fi nga xam ne rek moom moo di tëngee ca mu mel ni juróom ci ay doomi aadama nag ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus. nag yokk ci lim bi ñoom ñooñu ñëpp di ay cas communautaire di ñett ci ñoom nag di yëngu ca rek kër docteur ba nga xam ne moom moo nekk ca sàngalkam ñaar yi nag nekk ca kër docteur ba nekk foofee nga xam ne moom moo di ca diwaan bu euh, Tëngéej dañuy teewlu tënk li ak Ousseynou Thiam. Tëngéej dal loolu tolloog juróomi cas yi ñuy duppee ay cas issus de la transmission communautaire maanaam kenn xamul ku leen ko wàll mu doon ñett yoo xam ni na nga ko nemmee ko fële ci district bu Sangalkam bi nga xam ne bii moom moo polarisé lii di commune bu Sangalkam bu bambiloor bu tiwaan Peulh Niaga ak lii di bu Jaxaay yi fa am jàngoro ji nag ñu jàpp ne ay jigéen lañu ñoom ñëpp di yëngu ci wàllu commerce yeneen ñaar ñi nag ñu ngi ko gisee fii ci district bu Rufisque bi nga xam ne moom moo polarisé ñetti communes yi fi nekk di Rufisque Est Rufisque nord ak Rufisque ouest ñi ko amee nag di ay góor ci ay xibaar yu ñu dénk xamuñu nag ñoom ñi fan la ñu rek amee lii di jàngoro ji mu commencé jur nag njàqare ci askanu Tëngéej bi nga xam ne mii nemmeeku nañ ñi ci ñoom am na ñoo xam ne ñu bëri respecté wuñu benn yoon tegtal yi nga xam ne nii waa kër docteur jox nañ leen ko muy ci wàllu distanciation sociale bi wala sax wàllu lii di takkum masque yi mu mel ni nag jot na ñii di autorité ñu gën a nag dëgëral yi nga xam ne lii moom mooy mesures yi ngir fexe nag ba dakkal ci ni mu gën a gaawee loolu ñuy dippe ay cas issus de la transmission communautaire Euh, ca diwaan bu euh, Kolda ni ki tey ji nag ab soxna woo xamante ni am na jàngoro ji di coronavirus moom euh, moom moomee jóge woon foofee nga xam ne moom moo di ca di diwaan bu Guinée Conakry jamono yi nag mu daal def ab porox ndoll ginnaaw itam bu ñu ayee dem beek dikk bi ci yenn gox yoo xamante ni wala bokk fépp ci réew bu Sénégal ki nga xam ne moom moo di docteur Yaya Balde nag di médecin chef bu région ba fa nag mu ngi artu askan wi indi itam ay leeral yoo xamante nii rek jëlee nañ ko ci boobule soxna ñu ngi koy teewlu ak Abdoulaye Diallo. démb am nañu euh, ku jigéen ku am euh, ñaari fukki at ak juróom koo xam ne dafa daal di jéggi frontière bi. daal di dugg. Euh, fexe nag ba bañ a jaar fépp foo xam ne am na point de contrôle. loolu tamit ñu ko ci dimbale mooy transporteurs yi surtout moto jakarta yi ñoo ko ci dimbale ak yeneen transport en comme yi. ba mu daal di romb barrière yooyu yëpp yi nga xam ne ñoom ñooy surveiller frontière bi noonu la fexe ba àgg ci national bi nga xam ne diggante Kolda ak Vélingara ci national bi nag foofu dafa dox mu jóge ci croisement Biaru dox ba dugg ci dëkk bu ñuy wax Saare Wuddu foofu nag ci Saare foofu la comité villageois bi comité de surveillance villageois bi moom moo def alerte bi moom moo gis ne que am na koo xam ne mu ngi seen dëkk ñu ngi koy gis te kooku bokkul ci ñoom ñu daal di ko signaler benn élément de la presse ci la ñu daal di contacter district sanitaire de Vélingara euh, daal di ko wax euh, kooku tamit médecin chef bi wax ko préfé bi ci guddi boobu la ñu déclenché système euh, de surveillance bi ñu ñëw interpeller ku jigéen gi daal di ko yóbbu ci site de confinement bi nga xam ne mooy hôtel bi ngi ñu réquisitionné foofu ci Vélingara bu ñu ko doon jël nag amuloon benn mandarga yi feebaru coronavirus mais dañ ko prélever parce que xam nañ léegi am na ñoo xam ne dañ koy am te duñu am mandarga bi comme mu ngi jóge ci beneen dëkk boo xam ne feebar baa nga fa ci la ko daal di ko di ko jël defal ko visite bi àndi prélèvement yi fii ci Kolda bu ñu seetee prélèvement bi mu positif ci lañ ko andi fii ci Kolda ñu commencé di ko faj. mbokk yi ni ki tey jii ci euh, suba nag euh, janoo wi nga xam ne ministère de la santé da koy def saa su nekk ak askan wi dégg ngeen ki nga xam ne moom moo di euh, docteur Abdoulaye Bousso ñëwaat itam ci anam wa nga xam ne rek la ñuy saytoo doomi aadama yi ñu njort ne dañoo am li nga xam ne moom moo di mbas mi li mu xamle moom moo di jamono yi nga xam ne nag coronavirus mi ngi lëmbee réew bu Sénégal bëgg nañoo baral lépp lu soxol wàllu dépistage yi dañuy teewlu reportage hommage bi nga xam ne Chérif Dia daal dina koy def. gisee ci carte bi ci fukki diwaan yi ak ñeent yi fukki yaak benn jàngoro ja dugg na fa comme ni ko directeuru COUS daal di waxee moom mii di docteur Abdoulaye Bousso ñaawlu nag dem beeg dikk bi nga xamante ni tere nañ ko te teewul am na ñu koy def. Ah, ñu ngi woon ci juróom-ñeent bi ñu ci mujjee wax léegi Kaolack ak Sédhiou dugg nañ ci. Euh, li muy indi rek mooy que ñi ngi constaté ni que nit yaa ngi dox nit yaa ngi jàll di jóge ci benn gox di dem ci beneen gox loolu pour ñun dafay continuer di indi problème dafay tax aussi cas communautaire yi di gën a génn donc euh, xalaat nañ ni war nañ ci gën a farlu ba nga xam ne dinañ def ba nga xam ne nit yi du ñu continuer di dox di dem ci ci ci région yi benn Euh, mbokk boo xam ne ci beneen dëkk la jóge jugee si dëkk boobu dugg si si Sénégal bi ñu ko détecté mu am aussi euh, feebar bi donc loolu aussi lu am solo la ci wàllu controle bi nga xam ne moom la ñu war a def ci ci frontières yi ak ci biir dëkk bi ba nga xam ne nit yi du ñu continuer di di continuer di circuler. dem sax jàngoro ji wër na réew mi terewul ñoom waa ministère de la santé ne duñ soppi doxalin jëm ci dépistage yi ñu bëri doon sàkk ñu yaatal ko ñoom nee nan ba léegi rek contact yi la ñuy dépister ak malade yi. dépistage bu gën a gaaw gi nag nee na ko wante danañ ciy xaar ndigalu organisation mondiale de la santé. ñu xool Sénégalais yëpp nag am nañ feebar te loolu dañu ne même ci yeneen dëkk yi dafa nekk loo xam ne du mënul nekk parce que feebar bu ñu ko xamee su ñu jëloon Sénégalais yëpp ñu defal leen test bi bu ëllëg si ëllëg sa ñu am na ñoo xam ne mun nañ positif donc du loolu loo xam ne dafa nekk stratégie boo xam ne mën nañ ko adopté li ñu mën a def et moom la ñuy def fi mu nekk nii mooy di xool ñëpp ñi nga xam ne am nañ feebar bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo leen di wër beneen stratégie boo xam ne euh, ut ay yeneen jumtukaay yoo xam ne ñi ngi ci liggéey ci àdduna bi boo xam ne dina am diagnostic boo xam ne test bu gaaw boo xam ne ci euh, ñaar fukki minutes mun nga am résultat bi loolu moom buñ ko amee incha allah dinañ ko ut mun ko utiliser parce que dinañu may gox yi nga xam ne am na feebar bi dinañu mun a seet nit yu bari bi mi nag xayma situation épidémiologique bi docteur Abdoulaye Bousso nee na nemmeeku na ne ndaw yi jàngoro ji yab na leen. ci wàllu malade yi ñu am aussi jàpp nañ ni euh, ñi si bëri dañu nekk xale parce que am nañu fanweeru fanweeri at ak ñeent mooy âge moyen bi ñu am ci ñi feebar ci wàllu ñi faatu nag am nañu juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent loolu kon waxoon nañ ko ni ko ñi nga xam ne le feebar bi di gën a mën a daaneel mooy mag ñi. bu ñu xoolee aussi ci malade yi nga xam ne ñu ngi ci réanimation bu fan bi juróom-ñeent rek lañ ci amoon ci juróom-ñeent yi. ñeenti ñoo si faatu mais ñett wér nañu ba génn ci réanimation fan bi donc pour wax ni rek am na ñoo xam ne dinañ dugg réanimation mais dinañ fa mën a génn aussi euh, ci kàttanu yàlla. ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti district sanitaire yi nekk ci Sénégal coronavirus bi dugg na ci fanweer ya bu sukkandikoo ci waa ministère de la santé. boobaak léegi nag liñ fiy testé ci ay doomu aadama toll na ci fukki junni ak benn ak fanweer ak ñaar institut Pasteur daal di ciy réaliser junni ak fanweer ak juróom fukk ak ñeenti test URSF daal di def la ca des. Chérif Dia ca diwaan bu uh, Kaolack nemmeeku nañ fa ñaareelug doomi aadama boo xamante ni uh, am na mbas mi di ab góor uh, goo xamante ni am na ci lu tollook ñeent fukki at ak juróom benn yoo xamante ni rek ma nga ca diwaan bu Bongore dañuy teewlu tënk li ak Ibrahima Jàmme ñaari fan ginnaaw bi mu amee cas bu njëkkam ci wàllu coronavirus testé positif ci département bu Nioro diwaanu Kaolack am na ñaareelu cas ñu nemmeeku ko nag fii ci biir commune bi précisément ci quartier HLM Bongre cas communautaire lañ koy duppee benn waxambaane la bu am ñeen fukki at juróom-benn bu ñu sukkandikoo ci source médicale yi ñu jokkool nag moom agent la ci banque fii ci diwaan bi moom nag ñu ne bi mu sentiree ne yaram am na lu ci sutante ci la daal di dem benn clinique foofu nag lañ ko daal di nemmeeku ci la kon waa service sanitaire daal di ko jël en charge yóbbu ko ci lu gaaw gaaw ci hôpital dalal jàmm fi mu toll ni nag ñi mu jot a ameel contact lim bi xamaguñ ko waaye waa service médical ñoo ngi doon retracé parcours am jamono jooju nag contact premier cas bi nga xamante ne moom lañu njëkk lim ci diwaan bi ñoo ngi gën a yokk di dem ndax ci ndorteel ba ñoo ngi woon ci ñaar fukk ak juróom-benn waaye tey jile lim bi yéeg na ci juróom-ñaar fukk ñaari contact jamono ji nag andi nañ leen Kaolack tasara leen ci ñetti hôtel def leen en quarantaine pour période bi ñuy duppee période d'incubation bi war a durer fukki fan ak ñeent Ibrahima Diame ñu yi ak yow ginnaaw nag matuwaay ya nga xam ne rek jël nañ ko ca woowule gox teewutal teewul doomi aadama ñu ngay am jàngoro ji di uh, coronavirus ba tax uh, ki nga xam ne moom moo di préfet bu uh, Nioro di artu askan wa nga xam ne dogal yi ñu jël respecté wu ñu ko benn yoon koo xamante nii nemmeeku nañ lu ni mel ci yow daan jël ay daan daal di koy teg sa kaw dañ koy teewlu moom Abdoul Aziz Diagne ci micro Ibrahima Diame ba tey. ay arrêté pour dakkal dem ak dikk commune ba commune bu dee si li nga xam ne da nga yore wala nga yore saret wala nga yore moto parce que gis nañ ne lu ñu tere woon nit ñi dañ doon teggi fi nga xam ne gendarmerie foofu nañ leen doon doon taxaw di leen xaar ñu dugg si àll bi ñu jóge ba Touba jaaree ko yenn gox ak goxaat yi pour dem Poroxaan tey rek am na koo xam ne commandant brigade jàpp na ko te loolu dañu gis ne nekk loo xam ne day yombal xeex bi bu kilifa yi surtout ñi nga xam ne ñoo ŋànk mbiru wërgu yaram buñ leen ne ñu ñu toog nañu toog parce que loolu moo tax feebar bi mën a dal mais fekkoon ne ñun defuñu ko képp ku ñu jàpp nañu si yoon te loolu avant feebar bi doon ñëw woon. bu feebar bi dikkee si biir département bi ñu am benn cas li ñu jëkk a def mooy gën a tere dem ak dikk boobu ñaareel bi mooy ñu mel na cekkeen daal dëkk boobu. dootul kenn dootul dox wala jël saret wala jël moto jël oto génn dëkk boobu dem beneen dëkk même bu dee si même commune bi la ñu tëj également commune Darou Salaam amul kenn ku nga xam ne da ngay dëkk commune Darou Salaam di fa jóge di dem commune Nioro wala dem beneen commune te loolu dañ ko jël par arrêté dañ ko gendarmerie pour que mu appliquer ko systématiquement kooku gouverneur moo doon jël décision ne buñ si tolloo dina confiner département bi maanaam kenn dootul jóge département Nioro dem département Kaolack wala département Kaffrine wala feneen ak bu ñu jugee foofee nga xam ne moom moo di ca Kaolack nag dañuy dem sa diwaan bu uh, Sikicoor uh, ginnaaw doomi aadama ya nga xam ne uh, nemmeeku nañu ne ñoom ñoo am jàngoro ji du coronavirus njiituk bokk moomeel bi ak kuréel wa nga xam ne moom mooy saytu wàllu cet ga nag ñu ngay wëy rek di jël ay matuwaay naka noonu itam gox-goxaan yafa nag ñu ngay wëy di fa suy ay mbir yoo xamante ni dina mën a tax bile doomu jàngoro daal di leen di abal dañuy étudiants def nañu ko. gannaaw bu ay cas communautaire bu Covid 19 feeñee ci commune bu Ziguinchor autorités yi daal di ràññee ñaari quartier te mairie ak service d'hygiène jokkoo ngir pompé parce que amoon na ay cas communautaire yu présenté ci biir quartier yi léegi liggéey boobu moo ñu fi indi tey pour ñu effectuer ko saupoudrage mooy maanaam dañuy ñëw pomper dëkk bi maanaam poudre la ñuy utiliser ah, defoon nañu communiqué ak avec la mairie de Ziguinchor defoon nañu communiqué pour aviser population bi à ce que ñoo xam ne dañu am teen dañu xam ne dañu am ay ay aliments yoo xam ne ñu ngi ci biir kër yi nañ ko protéger loolu bi jàngoro bi commencé law ci ñaari quartier ñaari gox muy Lindiane ak jaab euh, yi ñoom tamit nañu il faut pour ñu mën a xeex bu baax a baax ci contre jàngoro bi quartier yi dañ la war a circonstruire pomper la moo tax tey ñu ñëw ànd ak ñoom wol leen tamit suñu engagement l' engagement du maire pour que ñu mën a xeex jàngoro bi nga xam ne tey ñëpp la laal. waaye li ci xaw a doy waar mooy askanu commune bu Ziguinchor mën nañ cee joxoon ñëpp ñu dëkk Jaabiir ak Lindiane. non duñ leen joxoon parce que moo tax ñun mel nañu il faut ñu ñëw teew fekk ànd ak waa service wala nii. du ay quartier yu bokkul Ziguinchor Ziguinchor lañ bokk dañu war a nekk seen biir ñun duñ leen daw wan ñi ñi ni dafa dal jaabiir dafa dal Lindiane mais mun na dal beneen gox te c'est pas parce que dal na jaabir wala dañu war a moytu ñu jógee jaabir ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi te mission bu ñu am tamit mooy gérer la population amul ajax seen. ñu jàpp si ay conditions yu métti la agence service d'hygiène yi defee liggéey bi ndaxte seen machine bi dafa doon pan di panaat ca diwaanu euh, Bawol ca Bambey nag ak séddaleeg masque woo xamante nii dañ ko fa nemmeeku ki nga xam ne euh, moom moo di euh, Aïda Mbodj nag daal di koy sas ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñawkat yi ba tax itam askan wa fa nekk ku ci nekk ci ñoom mën a takk saw masque daal di muy itam jàngoro ji di coronavirus naka noonu itam muy sàkku rek ci jiitu moomeel ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca yooyu la gox ñu def lu ni mel Babacar Diouf ak Ndonga Ndiaye. partenariat moo dox diggante conseil départemental bu ba Bambey ak tailleur yi ñii di tailleur yi ñoom war nañoo joxe lu toll ci juróomi junniy masque askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci département bi député Aïda Mbodj ne lii yoon la woo xam ne nii maire yëpp war nañ cee tegu. commencé nañ tey pour 5000 euh, masques commencé nañ pour 5000 masques te ça la le département moo tax ñu ne dans un premier temps bu doon sunu sago. 5000 euh, masques yooyu dafay ànd ak euh, jëfu maire yi maire bu nekk jëndal euh, commune am validité bi au auprès du médecin chef de district parce que soumettre na ko médecin chef de district dem na fa ay yoon demati fa ay yoon mu corriger ko ba valider prototype bi. on a dit bu ñu ci tegoo ñii di croix rouge nee nañ pare nañ pour joxe masque yi séddale ko askan wi nga xam ne ñu ngi ci département. bon maire man bon man yu bëri woo naa leen bu mel ne wooyee wax naa leen ne actuellement croix mu ngi nii disponible. si toutefois ngeen jox ko ay masque moom pare na ñëw ñëw dugg si population bi sensibiliser population bi jëkkati ay masque jox leen. parce que yi ñoom rafetlu lii lool ndaxte seen liggéey dina tàmbaliwaat ginnaaw ay semaine yu ñu toog defuñ dara. te arrêté nañ xew yi moment bi boo duggee ci marché bi liggéey amatul. tailleur ci bari dañu toogoon rek donc kon bu ñu demee ba euh, madame la présidente. jàppale mun naa ne jàppale tailleur yi la mu ngi jàppale askan bi mais jàppale tailleur yi la parce que kenn liggéeyatu toon mu wuuteeg loolu tere bi ñu teree dem beeg dikk bi solop masque bi moom mel na ni askan wi ànd nañ ci bu baax Babacar Diouf cant ak ngërëm ñel na la ca diwaan bu Kaffrine mu mel ni almoodi yi ñu ngay wëy ba tey di des ci la nga xam ne moom moo di mbedd gannaaw dogal bi ñu jël ñeel seen ak wàll rek ñu daal di leen di yóbbu seen i kër waajur wala bokk daal di leen di uh, téye ci li nga xam ne moom moo di uh, daara yi li lii nag ëlëm loolu la xelu askan wa nga xam ne rek ñoom ñooy yeewoo ca diwaan bu uh, Kaffrine ba tax itam ñu daal di rek jàkkaarloog suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa toogal di Omar Ndiaye ak Boubacar Fall Bopp ñu teelu reportage bi nekkum taalibe yi ci mbedd yi ëlëm na lool askan wi yeewa ci diwaan Ndoukoumane rawatina kaa communautaire yi jëlaañoo ci réew mi moo tax nag ñu ne jot na kilifa yi jël seen matukaay. Kaffrine taalibe yi ni ñuy taxawaaloo ci mbedd yi boo demee ci pharmacie yi nga dem ca station bi wala nga dem ca marché ba te taalibe yooyu ñu ci bëri dëkk yu nekk lañ jógee ñu ci bëri dañoo daw ñëw làqatu ci Kaffrine. tey booy xool nationalité bu nekk mu ngi ci mais taalibe yooyu ñu ngi laara bi laaran ci kër yi kenn mënu leen ay dugg ci dañuy dugg ba ci biir kër yi bañ ci jege néeg yi buñ ci waxut tey ji lu ñu nar ëllëg ci mbas mi ñoom danañ ci am waaye yàlla tere ñu nit danañ ñu ci am na ci njàqare ndax du doon gën tey sëriñ daara yi seen bopp tey seen taalibe yi ci biir kër yi ndax jamono moo ko doxee jamono na bu ñëwee dangay ngay ànd ak moom ci lam ñëwee wu leen ñu jàngal leen aayewuñ leen li waaye nag dañoo bëggoon ci ndimalu yàlla ak liñ bokk ci wàllu diina ji ñu tey xale yi ci biir kër yi ndax wóorul Euh, ku la sangu sa taar la bëgg te ndimbal aussi na naam lu nu mel beddiwuñ ko moo tax jàngalekatu daara bi di sàkku ci ay ñoñom ñu jël seen wareef ci taalibe yooyu mu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gunge leen ci wàllu dund nu nguur gi gën a mën a dimbalee sëriñ daara yi nañ ko def pour ñu gën a mën a téye xale yi waaye dañuy dénkit suñ mbokki sëriñ daara yi nga xam ne comme ñun doomu daara lañ ñu mën a téye ñoom it seeni seeni taalibe ngir danger bi nga xam ne xale bi wëreelu ci mbedd mi mu ngi koy enu lu nu responsable bu ko si def du mooy yooyu la kàddu ndax jàpp na ne jamono ji bëri na ci daara yoo xam ne jot nañu ay ndimbal dem ci borom daara yi waxtaan ak ñoom yóbbul leen ay denrées alimentaire waaye malgré loolu yëpp biñ ko waxee terewul taalibe yaa ngi ci mbedd yi biir Kaffrine naam fi ci diwaanu Kaffrine amul benn doomu aadama boo xam ne am nga ci jàngoro ji moo tax askan wi nag di sàkk ñu gën a bàyyi xel ci wàll wi bañ a naagu rax ci yi jël seen matukaay mbokk yi maa ngi leen ko doon junj ci rek ba ñu door yi la jotaayu xibaar ni ki ëllëg nag daañu door li nga xam ne ah, moom moo di ah, séddaleeg dund gi xam ngeen ne lii bokk na ci dogal yi njiitum réew bu Sénégal jël ngir jàppale askan wi ki xam ne nag li nga xam ne moom moo di séddaleeg googu nag di secretaire général bu ministère bu développement ah, communautaire ni ki tey ji ci suba la woon ca ministère de la santé ñu teewlu. sas mu jënd dund bi jagleel ko un million kër yi boo koy xayma tamit mat na euh, juróom-ñett mbaa fukki million sénégalais te ñu dund boobu ñu leen di jox saaku ceeb la ñaari saaku ceeb yu mag fukki litre dëwlin fukki kilo suukar fukki kilo euh, pâte alimentaire maanaam vermicelle wala macaroni ak carton saabu bi nga xamante ne 18 savon lay def ndax comme ñëpp xam nañ ko dañuy bëgg xeex feebar bi léegi nag ndimbal boobu nan la ñuy tànnee de euh, euh, kër yi nga xamante ne ñoom lañ koy jox tànneef bi dafa am ñaari façon la benn bi nga xamante ne registre national unique lañ koy wax bi nga xamante ne moom moo recensé njaboot yi nga xamante ne ñoo gën a néew doole ci Sénégal beneen bi communauté bi maanaam quartier yi chef de quartier yi maire bi gouverneur préfet sous préfet ñoom ñoo koy tànn te ci communauté bi lañ koy jaar maanaam ci suuf nit ñi ñooy ñooy tànnante seen bopp. suba incha allah mardi 28. monsieur le ministre Mansour Faye dina dem fekkee distribution bi nga xamante ne ñu ngi koy def en pilote ci commune Guinaw Rail Sud ak ci commune yenn dans la région de Dakar loole euh, nit ki euh, ëllëg euh, lay doon dañuy wax ci leneen mbokk yi mu mel ni pënd bi wuréegul ba tey ci jébbaluk li nga xam ne moom moo di licence de pêche yi ba tax jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowee nag daal di ci indi ay leeral yu yaa ginnaaw ab doxu nemmeeku boo xamante ni mu ngi ko doon amal ca marché centrale bu poisson ba nekk ca diwaan bu pikin Abi fay ak Modou Diop woon nañu ko ñu déglu reportage bi. anam bi ñuy joxee licence ñeel wàllum napp gi GPS ñoom jiiñ baaraamu tuuma ba tax na itam dem ca nag jëruñ gi ñu dénk wàllum napp gi moom indi ay leeral ci bileeg mbir gannaaw ba nga xamante nit moom mi jiite GPS yéeyoon na yàbbi. man dañ ma fi teg pour ma préserver secteur pêche pour développer secteur pêche te incha allah ci laay tënku xam nga coow bëri na te Alioune Ndoye bi jàkkaarloo fi ñu toog nii bi mu toogee tey signéegul benn licence de pêche tontu la bu doy ci par rapport ak li ñu wax yëpp waaye nag au Sénégal intouchable mënu fay am ni nga amee sañ-sañ yow doxalee say activité économique mm-hmm. noonu la beneen sénégalais amee sañ-sañ laaj obligation administration mooy tontu ko. mareyeur yi la ñu gën di gis rek moo di benn groupe bu ndaw la goo xam ne ñoom rek ñoo bëgg a yor bileeg secteur di ko doxalee ca anam ba mu leen neexee. yàgg na loolu du lu bees ministre bu ñëw mu chantage la dal sa kaw xeexaan la pour président la pi dàq la mais maa ngi lancé appel président la République bu mu dàq kenn seen yooyu nañ ko arrêté te seen gaal yooyu war nañ ko càmbal ba xam lan moo ko dugal ci réew mi seen gaal nañ ko xool parce que dañ naan dafa ñoom ñoom ñi tuumaal ne ay femmes ñu ne ci seen gannaaw mais ñoom nañ xool ba xam am ñu ne seen gannaaw am déet bateau yi ñu yor mooy yées boo Corée dañuy làqatu am na kore am na Chine am na fépp ñoom ay sénégalais ñu làq seen ginnaaw man mi wax yow su ma bëggoon am naa fukki bat mais damaa bëgg aussi sénégalais ñu honnête te bàyyi lëndëmal xelu doomu aadama yi. bi cog mbaloo gi ci wàllum licence napp gi. jeexagut ba léegi GPS ñi ngi gën a wëyal ñoom di gëm ne ñii di société chinoise yi ñoom ci seen boppam it ñoom ñooy rey nappuk Sénégal ba tax na ñii di professionnels yi mënatuñ cee gis benn yoon seen bopp jëwriñ gi ñu dénk wàllum napp gi ñëwoon nemmeeku marché jën gi nekk fii ci diwaanu pikin di dalal xel yi waaye itam di leen wax ni lépp dana yemb abi Faye ñu di la jaajëfal bu baax a baax suñu ndaw la nga xam ne nag jamono yi moo nga ca diwaan bu Pikine egsi nañ mbokk yi ci ñaareelu ponk xibaar yi li ci yéen kaay yi lay doon ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf juróom-ñetteel ak juróom-ñeenteelu nit yi coronavirus faat ci réew mi vox populi nee nañu ci week-end ci la ñu faatu kenn ki démb la faatu jigéen la woon amoon juróom-benn fukki at dëkkoon ca Touba coronavirus bi moo ko tëral ñu ko doon évacuer ca centre de santé bu Daaru Marnaan ca yoon wa ca la faatu keneen ki faatu ci week-end bi ci Covid 19 bi ma nga faatoo ca këram ca Thiès di imam bu tolloon ci juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett l'observateur nañu Lamine Sène la tuddoon keroog samedi ci yor yor ca la faatu nga faatoo ca këram moo ne woon imam bu jàkkaay buntu dépôt ca Thiès li ko tere woon l'hôpital ak njabootam wax nañu wàll observateur ne mooy médecin bi ko doon faj moo leen waxoon ne grippe ba ko jàpp maanaam dafa tooy ñoom it ñu jàppee ko grippe téye góor gi ci kër gi ba góor gi xëy faatu l'observateur nañu bi mu faatoo doom yi dañu ko bëggoon denc laata résultat test yi di génn waaye kilifay dëkk ba ñoo leen na du ci dal nañu xaar ba résultat génn moom imam Lamine Sène l'observateur ne nañu ma nga ñu denc ci armeer yu kër maam tëral ci réew mi lim baa ngay gën di yokk ne ci ñetti fan ñetti nit faatu nañu fi libération nañu ci biir 48 heures yi ñu génn am nañu ci réew mi 126 cas ak ñaari décès libé doon li ñu ci ne ca Kaolack benn ab caissier buy liggéey ci banque moo jóge Kër Masaar bu yàggul dem Kaolack bale fa jàngoro ja ñaari commerçant yu làqatu dugg Mbuur duggaale fa jàngoro ji ba yokk limub ña corona ci dëkk ba dëkk bii di mborox benn waay ba am téeméer yu manki fukk maanaam 90 ans moo fa corona nees koy faje libé loole moo yokk ak jaaxle waa kër docteur kër docteur bii di hôpital Matlaboul Fawzeyni Gëcë Touba Source Wa nee nañu major bu service médecine ba fa moom it jot na ci coronavirus bi pharmacien bu jigéen bi amoon jàngoro ji ci l'hôpital ba moo ko ko wàll muy juróom-benneelu nit bu mu wàll jàngoro ji moom ndaw si ndax ñetti collègue am ak ñetti mbokkam am nañu coronavirus bi te ci moom la ñu ko jëlee major bi ci mujjee jël Source Wa nee nañu mook mbindaanam ñoo dëkkoon ndax mbindaan ma am na coronavirus am déet loolee leeragul li leer daal moo di ci benn week-end ñaar fukki cas ak ñett am nañu ca Touba ñaari cas communautaire ñoo nga ca la Sénégal ñu takkarnaasee tiital ñëpp fi mu nekk nii rawatina fu ci mel na ca Tamba ca ñetti jaaykat yu nekk ca marché central ba ñoo fa corona covid 19 bi ak ni mu toll ci réew meeg jaaxle gi mu fi juru si du moom la xëy di waxtaane xamal ñu ne ñoo ngi toll ci juróom benn téeméeri cas ak juróom-ñaar fukk ak benn fukki cas communautaire ak juróom ak juróom-ñeenti nit yu fi faatu am nañu ci réew mi démbit beneen cas importé le quotidien bind ne ab Jakarta moo fi delloo si cas importé borom cas importé bi seen nas ndaw la su jóge woon Guinée ab moto taxi la jël moo ko dugal ci réew mi ca Vélingara fa la wàcc suñu frontières yi ak ni ñu yaraaxe Grand Place nee nañu bu ñu ci jëlul ay matuwaay yu mat sëkk coono bu ñu mën di daj ci xeex biit ngoppati ngoofaan lay doon ndax frontières yu yaraax yi tax na lu nekk daj nañu ko ci réew mi ci cas importé daanaka ba ñu tëjee frontières yi ci la ñuy soog a amee jàmm tuuti ci cas importé ñu bunt bu lañ sëy tàcc la def ndax fees dell daandante amu fa te it du ñëppay sol seeni masque bu ñuy ñëw journal bi gis ne mburu mi ñuy daw di wuti moo nar yokk musiba mi ci askan wi ki askan wi di laaj fan la féete di président Abdoulaye Wade mi ngi ci xët mu njëkk journal Les Échos ma nga fay dànkaafu ak di sàkku ci jullit yi ñu góorgóorlu ci xeex bi ñuy xeex coronavirus bi dem na ca sax moom góor gi bay wax ne am na ñoo xam ne bu ñuy defar ay masque yu tegewul ci kaw norme yu ñu war a defaree ay masque dogal boobe mu jëloon moom ministre industrie Moustapha Diop rocciwaat na ko dellu na ca ginnaaw ndax jàpp na ne masque lu mu bon bon moo tane ne a masque wu guddi yu ñu toll ñu toll ci xët mu njëkku soleil national gis fa kàddu yu wolof yu wow koŋ yu bàyyeekoo ci tubaab bu xonq cooy Philippe Laliou ambassadeur France fii ci Sénégal mooy waxtaan ak journaliste yu soleil national yi xamal leen ne bu ñu booloo dinañu am ndam suur soi nañu coronavirus bi dafa mel ne ku yëgul ne weer yi na ba nit ñi um nañu koor Mamadou euh, du Ndiaye euh, cant ak ngërëm ñel na la mbokk itam foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox di daje dañ fi teewaat ngir firiñ leen xibaar yi ci kàllaa mooy kocc 20h itam noonu ko defee noonu euh, ci kàllaa mooy tubaab lu moo leelee ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme ñuy wéy itam di leen rek ñaax ci jàngoro ji di coronavirus jël ngeen jëf.